salaamaaleykum sénégalais yi yéen lay waxal dama bëgg ngeen delloo si seen xel te am xalaat bañ a topp naxa yi tekkiwul dara Abou Sarr tekkiwul dara bu waxee li muy wax moo gën a xam ne li muy wax du dëgg ndax te keroog bi Serigne Cheikh génne àddina moom Abou Sarr kii kaset bi mu fi jokkoon a def ci Serigne Moustapha ñi bokk ci tarixa bi waxuma la sax ñi bokkul ci tarixa bi ñi bokk ci tarixa bi sax man laaj nañ ma ne ma sëriñ Cheikh dañoo def woon sëñ Moustapha rek la am ci doom man leen kii di wax yaayam am na fukki doom dañoo tekkiwul am na fukki doom ñu di la laaj nag yow fan nga jagante sëñ Moustapha yow xolu xol gu jeex ngay wax ak xolu wujje wujj ak doomu baay gu iñaan gu bon gu iñatati moom ngay moom ngay wax parce que sëriñ Moustapha ci wàllu ndeyam ñëpp xam nañ ni wàllu ndeyam bu dul woon baayam sëriñ Cheikh sax wàllu ndeyam rek may na ko cër bi mu nekk soxna Safi Dem kan moo ko jur ñu ne soxna Aminta Kan kan mooy papaam ñu ne Alaaji Amet Dem ñëpp xam ko muy kilifa diine gu mag nekk ca Sokone di nitu yàlla ñu indi ko ci soxna Astu Kan kuy foo foo bokk Alaaji Amet Kan ca Kaolack di nitu taaliba Seex di xalifa Seex Sëriñ Babacar Si seedeel ko ni Alaaji Amet Kan xalifa Seex la boobu rek day na mu daje si ci sëñ Moustapha sëñ Moustapha dellusiwaat ci sëriñ Cheikh kuy sa baay ñun sëriñ Babacar si sëriñ Babacar si di nitu nitu tariqa Cheikh àqan di nitu aqiqa àqan sëñ Moustapha yi daje ci moom dafa dajewul ci yow dama lay ñaan rek yow nga wax ma ayda dem kan mooy papaam fan la soxla ko xam seen famille fan ngeen bokk sëñ Moustapha fameem réerul ñëpp xam nañ leen nitu yàlla lañu nitu diina lañu keroog ba sëriñ Cheikh taxawee ca Ndar ni Moustapha sagal nga ma yal na la yàlla sagal boobu fan ngeen nekkoon bi sëriñ Cheikh demee France nekk fa juróom-ñaari at ñëpp yaakaar ni dootul delsi sëñ Moustapha di ko reyante ba Serigne seex delsi waa Sénégal booba fan ngeen nekkoon bi Serigne Cheikh dikkee tëju juróom ñetti at ci réew mi sëñ Moustapha ne ci di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba mu gis lu dal xelam ba xëy génnaat ci askan wi booba fan ngeen nekkoon bu leen jàpp xolu kiñaan ak fiir mënu leen a sakk sëñ Moustapha sëñ Moustapha yàlla yëkkati na ko ba pare te taal bu yàlla taal sànni ca mat nag moo gën fay ko yenn yi boo tëddee guddi sax yow xam nga ni sa conscience yedd na la doo nelaw yi ngay wax ak kiñaan rek la te kiñaan tonkul muur yàlla yàllaay maye li mu am soxna sa fi da koo liggéey soxna Aminta kan liggéey ko soxna Astu kan liggéey ko yow nag dañu lay laaj yow fan nga fan nga ak lu ngeen liggéey dañ leen koy laaj ñaata ngeen ak ngeen ni ngeen toll lu ngeen liggéeyal Serigne Cheikh ba nit ñi jàpp ne Serigne Cheikh mennum sëñ Moustapha la am loolu rek laa lay laaj dimbali nu gindi nu ci yéen fu ngeen nekkoon ak lu ngeen defal Serigne Cheikh ba nëgëni seen xol yi mënatu la ngeen di jëfu foofu ci kaw nit ñi dara ngeen mënul ci sëñ Moustapha toq toq ndox mënu leen ko ci da ngeen di jëfu foofu rek mu jaar fay ñi ko fi songoon fu ñu nekkoon dañoo mujj fay ñi fi songoon Serigne Cheikh anamu dañoo mujj fay ñu songoon Serigne Babacar Sy anamu ñoo ko siiñ fangata lu ñu mën a lul woon Serigne Babacar Sy mën a luñ ko woon Serigne Cheikh maamam baayam daañ ko duñ ko ko mënal ba ilaa abat di ngeen ko fi bàyyi sëñ Moustapha li da koo liggéey tëddul woon rek naan fii laa sant Serigne Cheikh ay sama baay da koo liggéey te am nit yàlla yu ko yu yu maamam nag Serigne Cheikh taxaw ni ko Moustapha sagal nga ma yal na la yàlla sagal sëriñ Cheikh di ko gërëm di ko cité ba mu koy gërëm di ko cité booba fu ngeen nekkoon ngeen nekk ba sëriñ Cheikh dem ngeen bëgg koo siiñ def ni da ngeen ko fay da ngeen di sonn rek mënoo ci dara nga ci mënul yow bu nga bi nga àddoloo nit ñi doog a xam ne sëriñ Cheikh am na doom ju sa euh, tudd Abdourahmane kon nag mayel nit ñi jàmm may leen assuré sonal nga nu fatt nga nu te dara nga ci mënul lii am am na ba pare ba muy liggéey ngeen tëdd di nelaw ba mu raw leen ngeen defe ni man ngeen cee toppaat di suwul dara nga ci mënul tey leen koy gën a gëm ëllëg lañ koy gën a gëm noog moom ba ilaa abat li mu am am na ko da koo liggéey liggéeyil bala nga toog comme yow nee nga gëmoo yi eh, sëriñ nee nga xaalis nga gëm yaa ngay wuti xaalis demal moom am na eh, nitu yàllaam ndax koo liggéey ba yàlla jox ko cërum nitu yàllaam am na gëm yàlla da koo liggéey ba yàlla jox ko suturaam dara nga ci mënu ba mu lay raw yaa ngi tëdd di nelaw dem leen yi fu ngeen jëm te may nit ñi jàmm nag dimbalil nit ñi mënoo xas sëriñ Moustapha tuut nga ci mënoo ko de ba ko bàyyam di gërëm di ko ñaanal booba nga waroon a xam ne raw na la booba ana ngeen ku mu ci tudd ci yéen ñaanal li rek laaj naa leen ba nga naan sëriñ Cheikh mayu ko werd yow xam nga ne li nga wax boo tëddee sax doo nelaw ku bokk ci yow fit waa ngay tëf tëfi ndax sëriñ seexami noonu xol bi la xasa bañ boo doon sangoo it mu yaa ngi koy fëndal yow looloo la dal bañ waxi baña la fi jàpp leneen jàpp la iñaana la jàpp ak iñati mayal nit ñi jàmm na dem ñu gis ni euh, bi mu ko defee ba pare bëri na ay réaction d'ailleurs dafa mel ni sax boo suivre élément ziar bi keroog moom il s'attendait à ce que dina am ñoo xam ne dinañ génn di répliquer mais tey réplique bi ñu ci gën a jàpp tey mu attiré suñu attention mooy la réplique de Abou Sy nga xam ni frère am la ñu bokk Serigne Cheikh mu def benn sortie ci benn rajo de la place ndax mën nga dellu siwaat ci ci réaction yooyu moom nga xam ne moo ci am waaw euh, xëy na euh, fii cadre bi ñu ciy waxee Euh, ndax dañuy faral di fàttali ne Serigne Moustapha dafa am ñaari famille dafa am une famille biologique mooy ñoo xam ne dafa bokk ak ñoom ci deret am une famille spirituelle muy ñoo xam ne li mu bokkak ñoom mooy wàllu ruux wàllu spiritualité mu ne mu nekk ci nag kilifa goo xam ne ay milliers et des milliers de fidèles dañoo bootu ci gannaawam te ñooñu importance bi nga xam ne nii moom lañ am ci cause am ak aju giñ aju ci gannaawam. moo tax ba lu ko laal rek laal ñëpp effectivement tey bu ñu dégloo benn euh, euh, chaîne de télévision de la place benn groupe de de de presse en tout cas dégg nañu réaction yoo xam ne ni am na par rapport ak waxtaan bi bon réaction yooyu nag ni ñu koy jàngatee ay tomb la yoo xam ne tomb bu ci nekk warees na ko mën a leeral ndax tomb bi may njëkkee. ci biir waxtaan bi dafa wax ne sëriñ Moustapha sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane si joxu ko wert jox ko ijaaza ma jàpp ne loolu njuumte la defe naa euh, téléspectateurs yi mën nañu vérifier képp koo xam ne ni dem nga ci YouTube boo tàppee imam Moussa Gueye da nga gis mu nettali jour bi nga xam ne nii moom la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy di jox werd Serigne Moustapha mu ànd ak moom di bisu àjjuma ci weeru koor bi ci des it damay laaj sëñ Pape Serigne ak dimension sëriñ Moustapha ak parcours am bu ko Serigne Cheikh joxul werd kan moo ko koy jox loolu waxuma sax euh, ne am na fait historique bu dëggal loolu waaye ci xel rek ci xel xel mu mu sell rek nan la mën a nangoo keneen ku dul Serigne Cheikh jox Serigne Moustapha werd